mais Jackson bu ñu gisee sa adversaire ñi ngay bëree ñëpp xaaj bi yëpp xamuñu la dañ dañ dañ lay réeree ndax ñu bari xamuñu réellement Jackson yow yaay nëbb sa bopp wala nu mu demee noonu. nëbbuñ suñ bopp sax mais xam nga eh, ngaxa ngaxaw la fa neex di nga ma xam bu baax mais ma nga neexut di ngaxa ngaxaw na nangam nangam mais bu arbitre soufflé eh, di nga xam lépp dëgg la c'est affaire nekkul ay neef yi di wër naan ne topp média yi ku ne nga dugg fa topp làmb bu am nga fecc bu mu jeex xam nga du loolu noonu. peut-être biir géew bi la ah biir géew mooy lépp mm-hmm. boo waree def fulla fulla boo waree def doxi dem doxi boo waree def leneen def leneen mm-hmm. mais def fulla ak taxawaal di wax bokkule mm-hmm. bu mooy que day tàmm ay adversaire ndax gis nañ fi sa combat ak bulldozer ñu ko doon dox ñu gis fi sa combat ak Papa Yade nga ne bëriwoo ak ñoom te ñooñu ñu bari nañ ay adversaire potentiel lañ Jackson Jackson nga bëgg a bàyyi boo yooyu noonu bëgg a yéeg ah, sa combat ak Papa Yade pourquoi jàpp boo may wax ay Bulldozer wala Papa Yade bëggoo ma avancé. ah man nga waaye mais la yow de comme comme nit bi wax la noonu quoi. Mhm. Bulldozer fan la jógee da ngay xool làmb nit nekk fu mu jógee ak fu mu jaar man du ma tàng adversaire man nee naa fu mu gënee saf na ñëw. ku mu gënee métti ku gën a soxor jox leen ma. xam nga laa ji moom waxuma la dix douze combats la rawaan ah sang bulaar pam doy li ma benn ñaari combat bilisaire. bilisaire nga numéro 2. bilisaire numéro 2 la kan la daan. kii kii daan na ko. daan laa bilisaire numéro 2 mu tudd euh, euh, bilisaire la daan ak fan la toj. a ah, bi de nag caaray bokk ci mm. espoir yi. waaw limal ak kan. ak kan du ma ko lim yow yaa ko lim Papa Yade Papa Yade Papa Yade waaw maa ngi bëre sànq moom la njëkk a sama combat mën a moom. Mm. nangu jël avance bi. même sax moom nee sax moom moo la raw. waaw bu ko neexee am na droit ni ko neex moom sa sa gëm-gëm ak wax nga yor rek mm. waaw. mais daal boo yooyu moom yaa ngi bokkale du ma ne du ma ñoom mais bu ma amee lu leen gën ma jël parce que làmb boo fi nekkee xam nga ku nekk mën nga bëre ak moom mën naa bëre ñoom. Mm. yàlla ma ñu boole jour. Mm. mais bëgg naa lu leen gën tamit. Mm. man maa nekk mbër moom du taamu adversaire man bu mu safee na si baax Pape ba ma ko jox dama koy lekk dama koy damm. Pape Yade bi. waaw ah, baax na na nekk lépp. bu ma amee lu ko gën daal bu ma amee lu ko gën ma jël. moom combat boo xamante ni gars yi dañ ci doon wax duma sax duma ne mu am benn sa combat ak caatu yoof mhm. ñu gis ni am nañu ko bëggoon mhm. sa combat ak ki nga xamante ni euh, sunu juumul Maama Lamine mhm. gars yi ñu ngi ko doon wax mais Jackson est-ce que foofu moomu teelu ay caatu yoof ay Maama Lamine xam nga am na benn mbër boo xamante ni sax euh, sama copain ma koy nuyu au passage sa copain kii la dinaa si ñëw ay lay Pythagore mooy mbër yooyu noonu mais est-ce que Jackson yow foofu teelul quoi teelul ci yow. waaw yow war na yow Maama Lamine daa def lu ma deful man si làmb. Maama Lamine. lan la dafa xam dafa mu si làmb. borom doo borom lam sax. waaw léegi yow maanaam am affaire yi ñoo ak ñoom bokkuñu caa yow daa def lu ma def suñu làmb. tànki laa mais Maama Lamine moom tànki la. Maama Lamine taxaw ma Maama lan la def lu ma def suñu làmb. ah. man ak ñoom bokkuñu man lu may génn si média mu bëriwul. kon Maama Lamine yéen ñaar bu promoteur seet si woon jox la avancement wala bi sérieusement damay bëgg damay bref. ma wax moom metti sax boo demee ay ndax Mamadou daa teel wala ay caaxaan daa teel <laughs> ma teg sama ngëm. mais la daan teg man Mamadou Lamine nga teg ci promesse teg promesse def si lamb man defuma ko. si te de. waaw yooyu moo tax xam rek mooy loolu noonu quoi. Hmm. Mamadou Lamine lu ñoom gaa ñoo la gën a xam ñoo la gën a xam fu mu métti. jàmbaar yi xamante ne seen biir man samay mbir du ay wax du ay nangam naam maa xamal la man ba arbitre taxaw suñu diggante xam lépp dëgg la caxaru yoof noonu. du ma noonu. la. moo yow naa neex rek. Eh, caatu yoof caatu yow. caatu yoof. bu baax. man boo gisee ñu naan ay caar yow ñu naan caar yow ay kii booy la ay nangam naa waaw man booy booy laa booy bu leen di lajal si boppam. ñoom bu ñuy bëree bëree ay maama la mais ay caar yow bu ñuy bëree waaju moo sax bëree mais bu ñu booloon si biir géew nga xam. dafa na man lépp na man bëree na man dóor na man xeex na def lépp mais caar yow maama Lamine. du moteur kéwal. la. barki Serigne ma si jox ma dans ay seconde.

bu baax sax. limal ma ñan ñu mën a limal ñooñu kay bu ñu boole Kara bu ñu xool. Kéwal Duul Moteur Duul Moteur. ma euh, xool lu may wax ma pour ay wax pour bégal nii ay pour nii man xam man sama wax bëriwul. Mm-hmm. man c'est la ma taxaw si ay médias di laaj ay nit naan nii. Mm-hmm. ay bu ñu booleel. parce que ñoom sax boo leen naan ay nangam ak nangam ak Jackson nangam booy la nangam booy la d'accord ñu ma gisul laamu foofu mais bu ñu boole nga lépp dëgg la hmm. waaw. am na sa combat ñu doon dox. waaw am ñu doon dox hmm. ñoo ci ginnaaw laxaat rek laxaat am ku ñu déggool rek hmm. waaw ñu bëri moom quoi mais di la wax ñooñu ñooñu ñoo ñooy sama adversaire ñooñu boo tegee seen adversaire boo tegee seen seen seen kii fu ñu jaar te fu ñu jaar moo xam lépp dëgg la. waaw tegal seen palmarès teg sama palmarès. tam nga yaakaar daal ñooñu nga lim déwén incha allah dina bëri ak non man du ma force bu may bëreel man force bu may bëreel mais am naa sant ni ñii laa bëgg waaw soxla ma si kenn pour mu bëri man waaw topp ma si kenn pour mu bëree man. mais waaw bu gën a gaaw gën a neex si ñoom bu yéexee gën a metti si ñoom. si ñoom ñooñu. man tout le laa ñoom man ba ma dugg si làmb yàggul man 2015 laa dugg sama 2016. Hmm. te xale laa tamit samay maag incha tamit ñooy ay xale ay ñoom ñoom ñoom mag foofu mën ma jur billaahi ah pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV tey nag ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy Jackson borom Guédiawaye dégg ngeen li nga xamante ne moom la fi wax mu def nag 12 combats 10 victoires 2 défaites bu nekk xale boo dafa nekk ci yoonam Pape Ndoye la mujjee daal dégg ngeen nga xamante ne nag moom la wax parce que tamit ah, jaadu na yéen ñuy seetaan peut-être yéen yéen yéen mais wax dëgg yàlla nekk na ci yoonam Jackson instant bi ñu gis ne làmb fu mu toll. ndax ñu bari dañ ne doxatu. Mhm. gis nañ ne ñi ne yenn mbër yi la. ñi ne moom lu dox lu dox Sénégal bëriwul instant doon nañu waaw làmb àdduna lépp noonu lay doxee. dafaa day neex jéeg-jéeg naqari. déwén mu naqari jéggi ak neex waaw làmb ma sooxee na wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg rek nu mu doon doxee doxee ko noonu mais amaana gars yi dina waxtaanaat. kon ci ban côté. côté yëpp promoteur amaana daal sponsor daal moo des. sponsor yu ñëwaatoon rek lépp neex. promoteur dañuy wax lu ñu fay bëri na tamit mais mbëri tamit lu ñu def ci làmb dafa métti. waaw métti na te bëri na tamit yow lay fay làmb amaana ba pare ay bor moo la si fekk. su lekk dërëm làmb dafa métti. promo tamit day lijjanti ci xaalisam tamit xam nga lamb bu ko financé tamit ab sponsor ak yooyu na si gars yi jàpp sponsor yi jàpp si lamb diriwaat fu mu nekkoon. Mhm. Euh, waaw da nga koy waxtaanee rek moom lépp loo gis rek da nga waaw boo waxtaanee di bu ñu waxtaanee di leen jubóo waaw. Alioune Tall waxtaan moo fi teg waxtaan ma deneen moo koy jëlee mm-hmm. waxtaan moo fi tegaat nan nga waxtaanee rek. Mm-hmm. Mm-hmm. mais noo gisee instant bi ren mbir yu mag yi ku ci mel ni Balla Gaye. Modou Lo pour adversaire pour mu am adversaire c'est tout un problème. te yow boo ko doon jox adversaire Tapha Tine ak Tapha Tine war a bëri. Tapha Tine ñu mu war a bëre kay boo yaa ngi ko may booy sens. comme moom may na booy sens ba sonn moom Tapha Tine a mën na bëre na ko joxaat la rek. Tapha Tine bu neex la. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapha waaw. adversaire de mm-hmm. lay nekk. si moo daax a waaw baax sax. Lac de Guiers la. Ah, moom défenseur Tapha hmm. hmm. Tine day rasu. waaw rasu si laamu la bokk. waaw hmm. ah, day rasu mais bu gisee bu day bëre. am nga yàqin ni combat bu taxaw Lac de Guiers mën na koo daal. non loolu am si xel ñaar sax si fit fee. fu mu ko la koy jaaraat rek. Boy Niang Balla ku dul Boy sax Balla moo la man. foo ko Balla Gaye moom mooy ndaanoon làmb ji moo si mën foofu kay c'est le meilleur. ci làmb ji yëpp. làmb ji yëpp. si loo koy critiquer si làmb amul. moom gaa yàlla lu may lépp Balla yàlla lépp la ko may. ok. Balla allah doole ji bëri na xam-xamu làmb ji bëri na fit gi foo ko nat wees na ko mm. kon ko la. yàlla lépp la mooy macha allah. beneen bi beneen bi mooy lu bari. Mhm. dañ lay xaw a ak Modou Lo. loolu yaa ngi koy dégg yaa ngi Modou Lo am ngeen relation. non Modou Lo wax dëgg moo suñu gisante sax suñu déggante. Mhm. waaw mais lu ma koy nuróole tamit bëri trop. Mhm. moom tamit jàmbaar la champion la. ñu ne boo yëngu si dara yëngu si daw dara ñu lay tëkkaleel koo xam ne moo si raw tamit yàlla may ko si tamit da lay neex mais amuñu relation mosuñu déggante mosuñu gisante. waaw loolu dara loolu dara ñu ngi ñuy nduróole chaque chaque chaque jour ñu wax ma ko. mbëri ñëpp mën na bëre. mais lu ma wax si Balla rek Balla moom moo si mën foofu. moom bay gisal. mbër bu sañoon mel ni bala Gaye si bari bi si man bëre bi si doole ji si fit ji lépp hmm. ci làmb loo xamante ni commencé na laa neex. lu ñu amaana amaguñ neex quoi parce que daan guñ champion moo tax buñ daan champion rek amaana. boo leen ñëwee dañuy ñëw jour bi kat neex ñu ci laamu mais daanaka ñu champion wala. yaa ngi man sama xel xaatagul loolu lu ma am làmb moom moo gënal du ma toog sax sama xel di nekk si ay tukki ay ay yooyu noonu waaw làmb moom gënal lépp man ba may wax ma wax làmb wax tukki ay wax leneen moom merci. Hmm. mais sa mbokku loolu ñoom seen choix la rek ni ku nekk ak choix am ak ni ku nekk bëgg-bëggam waaw mais duñ gaaw wari quoi. Hmm. l'émission tire à na hmm. waaw ñu ngi sandaat rek sandaat bu baax sandaat yàlla bu baax di sant ñëpp di sandaat bu baax bu baax ñaan wér. waaw sama yaay mu nekk yàlla na gërëm fu mu jógee di ñaanal mère Awa mère Awa yombe dafa tawat suma mère bu nekk ci Dakar yàlla na ko yàlla yëkkati waaw am tawfeex bu baax a baax wér ak jàmm mère bu mu bëgg la ama bu ma jàppale tamit la moom moo tax na ma yaay na ma dara di ko ñaan yàlla na wér ak jàmm waaw ah, di ñaanal doom yeeg yëpp ñoom Alsaan ñoom Ndeye Seye ñoom Thiago maam Seye xam ànda ñoom Moussa sama rakk bu baax di ñaan waa gaal bi yëpp Père Bakary Seye te bëgg sama gars yi bon ku mel ne ñoom Laye Diop sama grand ñoom Baba am xam nga nuyu sama ah dëggal bi Ndiogo borom ah, di wax mu pare yu bees quoi man pare naa. Hmm, kon Pape Ndoye yaay <laughs> di wax ak jàmm di bëgg ñoom magam bi Ali xam di bëgg ñëpp daal di bëgg Wëz Babylone xam nga Adi Ndiaye xam sama grand frère maa ngi koy bëgg bu baax a baax a baax papa buun ama maa ngi bëgg ñëpp daal di wax Fulim Dioum di wax tamit Géewaay man fa laa dëkk fa laa def lépp. ne waa Buur ñoo la nangu. non nangoo ñu ma sax maa ngi. yow da nga bëgg yomb sa base bi yëpp fii la ba pare naan Géejawaay. gars yi ñu ngi la koy kiiwee maa ngi Géewaay fa laa dëkk. sama sama diwaan la xam nga buun tamit sama diwaan la. xam nga dama Géewaay fa laa dëkk sama lépp mi ngi fa xam nga waaw di di bëgg ñëpp di woo ñëpp ñoom Pape Mama Fall xam nga suñu président Pape Fall père Dora père Mbaye xam nga di wax Lat Diop daf may jàpp bu baax a baax a baax président Lonas waaw waaw di wax Diaz Couture bu waalo sama teer ak ñaa amet ñaa jàmm gën ak di bitëri laay sab sab xam nga maa ngi biyee ñëpp ñoom Adama Niang ñoom moo faaya xam ñoom Ahmada ñoom Njooraan ñoom Khalifa xam ñoom am Jean ñoom Elton gaa ñoom Lac Rose maa ngi biyee ñëpp fariment di sama gaa yëpp di ñaanal jàmm ñëpp di waxaat am Baba Laay Diop xam nga kon waxe Sadio borom créé ak ngay bëgg bu baax a baax asalaam di bëgg waa Wassare Lamb di la bëggee tamit waaw wasalaam. l'émission tire à sa fin di ko béggawaat bu baax a baax mu ngi Jackson Junior mu bokk wax dëgg yàlla ni tout le ñu ko soxlawee day yomb di ko ñaanal euh, ndax ñoo bokk ko sedd muy Serigne Mouhamadou Moussa Fassi di ko ñaanal gudd fan ak moo xam ne bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mouhamed dañoo te bokk pas-pas moo ëpp lépp moom di ko ñaanal ah yoon moo xam ne bëgg yàlla na ko yàlla defal euh, yàlla def ko nag roi des arènes ah, ñu ngi koy ah. ñaanal bu baax a baax parce que bu baax nga mbër kuul la Ah, di ko bëggee nag moom bu baax am papa am papa baax ndax ñoom moom c'est la famille loolu bu baax lañ mais bas dafa am koo xamante ni ah, ñaanu ma yàlla fàtte ko mu nekk koo xamante ni xale la nekk koo xamante ni nee naa leen man man kiiwuma dara mu ñëw bëggal boppam muy Kara Fashion na di ko ñaana la mooy borom dakaar mu nekk koo xamante ne borom bu baax a baax naan la euh, kii bi nice na quoi gis nga affaire bi moom nice yi. waaw waaw numéro mu nekk 77 77 518 07 59. moom mooy numéro Kara moom mi ngi nekk ba Sandaga en face pharmacie Guigon mu nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla day jàpp ci combat bu baax a baax frère kontaan naa ci yow yàlla na sa jàmm yaa ngi nuyu Kara Fashion tey logo bi laa sola naa la nga préparé yeneen mais bas dafa koo xamante ni suma frère la mi ngi nekk ba France di mu bëggee lool baax muy Abdul borom France borom anniversaire bi di la ñaanal gudd fan ak wér ak wérle yàlla aaroon yàlla sàmm la kontaan naa ci yow bu baax a baax parce que ba nga jàppee ba tey bàyyi woo kontaan naa am keneen koo xamante ni tamit moom suma suma xarit la di waajal borom le 26 muy xalifa ah, kenn ci man naan la le 26 damay baax ci kattan yàlla maa yow gàttu benn maa koy maa koy dagg ndax koo xamul noo koy def nam la defa tax. Basiru kese ah Wassare kese nii rek nañ koy defee à chaque fois dañuy dem xoolaat beneen bopp wala benn promoteur wala benn manager ñu dem waxtaan ak ñoom ndax nee naa leen Wassare am na yu bees tax yoo xamante ni commencé na ko nag commencé wu ñu fo rek jaajëf.